dama la wax ni Ama Baldé ni ko waa Pikine bàyyi xel sama dooma booy Niang sama dooma Malick Gakou dafa may jox ay taraang ma di leen ko yóbbul man nee naa ku dul Yékini doo tey seen jox naa la xaalis Malick Gakou la ko jox kuy takk ngemba fii ñu di la dégg man jaw jox naa la xaalis boo ko weddee waxal ci sud yi bu ma la masul jox xaalis boo waxee ci sud yi man di la xaalis